salaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégo tey nag euh, ku ngeen jàkkaar lool mooy euh, Ndiaye Diop directeur des relations publiques de la CNO en même temps nekk porte-parole de la direction générale CNO buñ ko fi dalalee tey c'est pour mu apporter des précisions wax gaay lan moo xew CNO ndax gis nañ ne les travailleurs de ladite société depuis euh, fan yi yëpp ñu ngi si grève nekk si même deuxième phase de grève démb nag euh, lancé wu nañu def assemblée générale lu ne dégg nañ ko fi léegi dañ koy bàyyi mu nuyu ak euh, internautes yi après dinañ wax lan moo xew exactement seen o Ndiaye Sénégal mu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di fay waa Sénégal di nuyu ñoom ñëpp. lan moo xew Sen'Eau. waaw jamono ji yaakaar naa ne kuy topp mbirum Sen'Eau dina dégg ne. am na ay liggéeykat yoo xam ne nii ñi ngi am ay jàmbat di wax ne da leen am lu leen naqari ci kër gi ndax daa lu ñu ngi laaj direction général direction général bañañ ci wuy si ñu tuddee seen bopp intersyndical mm-hmm. ma leeral ne kër gi di seen o juróomi syndicat ñoom ñoo fa nekk mm-hmm. ci juróom yooyu ñaar ñoom ñoo fësal seen jàmbat ñu koy wax sat Elimane Diouf mi secrétaire général aussi bu CSA jiite mhm. ak UTIS boo xam ne ku ñu wax Omar moom moo ko jiite ñoom dañu wax ne atum 2017 2018 balaa ñu doon lancer appel d'offres international mhm. pour seet kan la ñuy dénk mbirum ndoxu Sénégal ci at yi di ñëw ñoom syndicat yi juróom yi booba la woon atum 2017 2018 ñoo dajaloo woon def lu ñuy wax mémorandum ci mémorandum boobu mu amoon benn ponk boo xamante ni dafa waxoon ne kuy mën a toog moo xam SDE moo xam ku bees bëgg nañu su ñëwee ñu waxtaan ak moom ci yokk payoor te bëgg nañu mu dem ci dayoo 40 pour cent jamono jooju kilifa gu fi nekkoon muy Mansour Faye mu ne leen comme dañu nekk ci processus appel d'offre dossier yi déposé nañu ko ba pare te lii ngeen di laaj day am impact ci ñoom seen offre yi balaa ñu leen di indil tontu ci lii ngeen di laaj dangeen ñuy may ba ñu jeexal processus bi ba tànn ba noppi mhm. suñu tànnee ba noppi ñu toog man ak yéen ak ku bees ki ñëw mhm. wala ki fi nekkoon muy SDE ñu waxtaan ci jàmbat bi muy mbirum yokk ndox mhm. yokk mbirum payoor yi dina nekk wala du mën a nekk ak buy nekk ci ban dayoo lay nekk ba ñu defee loolu ñoom ñu teg lépp ci suuf bi processus bi jeexee ñu ne siège moo jël ndam seen woo ñëw toog 2020 ñu dawal 2020 weeru mars covid ñëw yëkkatiwuñu ko ñëw 2021 ba tey ñu ngi nekkoon ci covid bi ñoom it ñu teg ci teg lépp ci suuf deux mille vingt deux nag ñu ne kon ñoom muñ nañu ñaari at dañuy yëngalaat pour ñu waxtaan ci mbirum quarante pour cent yooyu ñu leen waaw ñun bañuñu ko ñoo leen ñu toog waxtaan waxtaan bi sax yombul woon ci njëlbeen waaye am na ñoo xam ne dox nañ ci ay tànk jàmm ku ci mel ni euh, Serigne euh, Ablaye Makhtar Diop mhm. grand Serigne de Dakar mhm. dox na ci ma lim ko moom ndax ñi mën naa ko lim. Mhm. ak secrétaire général adjoint bu CSA. Mhm. ñu koy wax Ibrahima Gueye. Mhm. ak ñeneen ñoo xam ne nii ñoo xam ci kër gi lañu bokk. ay président daayira wala ay ay président des cadres. ak ñeneen ñoo xam ne sax xamuñu leen fexe nañu daal ba intersyndical bi ak direction général toog. bi ñu toogee ñu ne ñoom am nañu fukki ponk ak ñeent. ñuy ñambaas ci laaju yokk payoor yi. 14 revendications yi 14 points de revendication. bi mhm. ñu waxtaanee ak ñoom ñu ne léegi mën nañ koo dajale. Mhm. def ko sous forme de thème muy ay pàcc. Mhm. ñu ne ñoom pàcc bu njëkk bi ñu bëgg a waxtaan ak ñun mooy pàcc yi mooy mu nekkoon wàllu saleer yi. ba muy yokkati payoor yi beneen mi ngi jëmoon ci wàllu oto yi. nan la ñuy def ba képp kuy cadre ñu mën laa jox oto. ku mënul ku ñu mënul jox oto ñu fexe lebal la oto. yombalal la ko beneen bi mi ngi jëmoon ci nan la ñuy fexe ba di gunge liggéeykat yi mhm. rawatina koo xam ne dafa bëgg a dem à la te appam jotul ñu mhm. yombalal ko ko beneen bi mu ngi jëm ci wàllu yorinu kër gi ñu wax ne gouvernance bi la bëgg mu nekk gouvernance plus participative mhm. ci loolu ñeenti pàcc yooyu lañ d'accord ñu ne leen kon ci ban pàcc ngeen bëgg ñu tàmbalee ñu ne yokk payoor ñu daje ci ñett yoon bi ñu dajee daje bu njëkk dañ doon organiser agenda bi muy calendrier de rencontre. Mhm. bañ ca noppee ñu laaj leen ci beneen séance ñoom nan nu wax ci lan ak lan lañu sukkandiku. Mhm. ba jàpp ne kër gi di Sen'Eau war na yokk payoor quarante pour cent fi ñu toll mhm. ñu def seen exposé beneen séance bi ko ñetteel direction général def exposé. indi ay chiffres indi ay firnde ni kër gi li leer ci résultat yi mooy résultat négatif la maanaam amul bénéfice bu ñu koy gàttal mën nañ ne kër gi dafay perte. mais ñoom loolu dañu ko weddi. waaw dinañ ci ñëw léegi. Mhm. ndaxte biñ ko waxee. Mhm. amul kenn ku jug ci ñoom ne ànduma ci chiffres yi ngeen joxe. Mhm. ci pertement bi ñu wax leen ni am na ñaar yoo xam ne moom moo ci gën a fës. mooy. recouvrement mhm. mooy rendement de réseau mhm. recouvrement mooy ñu fexe ba képp koo xamante ni am compteur sa kër mhm. ñu facturer la fayeeku la mu dugg ci keesu kër gi ñu gis ne dafa wàcc bu baax te euh, recouvrement balaa seen audit ñëw bokkoon nañ ci ñi ci gën a xarañ ci Sénégal ndax booba jamono ba deux mille dix neuf quatre vingt dix huit virgule cinq pour cent de taux de recouvrement lañ amoon. fii may wax ak yow fii may wax ak yéen amuñu quatre vingt dix wala boog dañ koy xaw a dab dabal. pour cent kon wàcc na. bu dee taux de rendement de réseau rendement de réseau boo ko déggee mooy bu dee cent mètres cubes nga moom nga produire. dañu wax ne du lépp mooy yëg si ci robinet. ki koy jëfandikoo muy consommateur mhm. di client bi ci cent yooyu may nañ la nga perte ci diggante vingt jëm suuf maanaam mhm. vingt bu mu ko ëpp mhm. vingt pour cent te obligation contractuelle bi ñu seq ak SONES daf ñu wax ne waru leen weesu waru leen yées waru leen wàcc quatre-vingt pour cent fii ma wax ak yéen ñu ngi ci soixante quinze pour cent. Mhm. te ñu ngi ko yéegaloon ci objectif bu deux mille vingt deux bi. Mhm. ci quatre vingt et un pour cent. mais loolu lan moo ko waral ñàkk xarañte SDE seen la wala. déedéet xam nga dafa am loo xam ne moom moo ko gën a précipité. Mhm. ndax atum deux mille vingt et un daaw. ci weeru avril. dañu dugal usine bu bees bu wax Kër Momar Sarr. 3 KMS 3. te balaa mu doon ñëw ku ne xamoon na ne réseau bi. pression bi ndox mi di ñëwee dina yàq lu bari kon yàq lu bari loolu mooy toj-toj yooyu lu bari ci ndox mi usine bi di doon togg di indi dafa sotteeku yëgsiwul ci robine client yi te kon dafay feeñ ci am amu kër gi ak yeneen yoo xamante ni loolu ba nit firnde rek la ci loo xamante nii bokk na ci li gën a gàllankoor wàllu rendement de réseau bi ñu ne kon comme réseau bi dafa màggatoon dañu tàmbali di ko liggéey dëgg ñu ngi koy liggéey di réparer ay fuites. di mhm. defar di defaraat ba fi mu nekk nii tubarkaale jàpp nañu ne fii ñu teg suñu tànk suñu ko teggul dinañ mën a yëkkati rendement de réseau bi. Mhm. ci lañ leen waxee ne kon ñaar yii dañoo bëgg ngeen ñëw ñu jublu ci liggéey ko maanaam ñuy fayee ko client yi ba mu leer nañ ba xaalis bi dugg ci keesu kër gi. Mhm. rendement de réseau bi ñu defar ko lu tax rendement de réseau bi ñu war koo defar mooy. point boo ci manqué dañ lay defal pénalité pénalité bi ay millions lay doon point bu nekk millions yooyu mu doon point bu nekk boo ko dajalee de romb milliards di dem te loolu ñu ne comme pénalité boo war a fay SONES SONES moom mooy société de patrimoine xaj na ci ñun au lieu ñuy fay ay pénalité nañ ko liggéey moom ko li ngay dàq kéwél mu jëm àll dàqal mu jëm kër loolu lañ leen woo ne leen buñ ci liggéeyee fii octobre novembre ba décembre ñu toog ne lan la jur lu mu jur rek ñu séddoo ko lu mu mën a jur rek ñu seddoo ko mooy kon bañuñu yokk bi bëgg nañu ko waaye fii ñu ak yéen mënaguñu ko léegi nañu fexe ba mu mën a nekk te muy mën a ni muy mën a nekke mooy ñu gën a góorgóorlu mhm. wagasuwaat laxasaayu liggéey gën a yokk performance kër gi mhm. li ciy ruuse ñu mën koo bokk séddoo ko mhm. foofu lañ tolloon ak ñoom ñoom ñu ne loolu sax gaa dégg nañ ko waaye suñ sañoon mhm. bu ñuy dellu ci base bi base bi mooy bu ñu dellu ci liggéeykat yi ñi leen yebaloon ñu ne leen direction général proposé na augmentation tant de pour cent waaw mais ñoom ci loolu bañuñu un bañuñu deux bañuñu trois mais ñoom ci loolu ba ñu leen déggee ñoom démb ñuy wax dañu ne quatre séances de réunion yi ngeen am yëpp direction générale amul benn proposition bu mu def lii ma lax nii proposition la li nga wax man jàpp naa ne proposition la mais ñoom si seen kàddu ñoom dañu ne euh, quatre rencontres yu ñu def yëpp mooy négociation yi amuloon benn proposition bu direction générale def ah bii de proposition la maanaam bu fekkee nag dañ doon xaar ñu ne mën nañoo yokk un pour cent wala mën nañoo yokk 2 pour cent mën nañu yokk 5 wala 10 wala 20 pour cent loolu moom direction générale bu responsable. xam kër gi fi mu toll ci wàllu résultat bu négatif. doo ko def ndax boo ko defee da ngay déplacer problème ndax day yàgg rek mais dina la dab ndax su fekkee ne yow amoo yenn am-am yi maanaam sa résultat baaxul. nga yokk ay charge parce que li ñuy laaj 3 milliards lay jar. moom la nar a dikkee kër gi trois milliards. ñetti milliards ñetti milliards yooyu fokk mu génn fen kër gi amu ko kon fan lay génn ci clients yi lay génn te bu boobaa nguur gi day wax ne dama yokk ndox pour mën a permettre seen eau mën a yokk ay salaire yaakaar naa ne boo loolu bu ñu ko waxee population bi duñ ko nangu ñu leen kon foofu du yoon beneen yoon bi mooy ñu ne SONES da ngay yokk say investissement te SONES dafa am plan ba pare di ko doxal yaakaar naa ne SONES du nangu loo xam ne ñu programmé wu ko uniquement pour yokk ay salaire u liggéeykatu seen o loolu lañ leen wax ñu leen kon fii ñu toll nii kenn bañu ko ci leen jëm dañ leen yokkal yokk boo xam ne sax su mën a weesu li ngeen di laaj ñu mën leen ko defal wante bët du yanu xam ne nag lu bopp àttan nanu fexe ba mën yokk ñu yokk ni ngeen ko bëggee waaye balaa booba wax nañ leen ne bépp liggéeykat diggante deux mille vingt ak deux mille vingt deux bu mhm. xoolee li tegu ci li mu am at mu nekk. Mhm. ci li muy jëlee ci kër gi yokkal nañu ko un million cinq cent quarante mille francs CFA. million cinq cent quarante mille francs CFA bu ko dajalee. Mhm. ci liñ koy yokkal loo xam ne ñoom laajuñu ko. cumul pour un an. waaw depuis deux mille vingt ba léegi. loo xam ne ñoom laajuñu ko. booleeg ay prime yoo xamante ni bu tabaski. bu korite. bu Noël bu Pâques ak prime de scolarité te prime bi li ci gën a yées deux cent mille romb na ko te loolu ay waxtaan la yoo xam ne séqoon nañu ko ak juróomi syndicat yi ma la wax nii bi ñu ko defee wax leen loolu yëpp ne leen kër gi bañul yokk def na ay jéego bu ñu ko xoolee sax en valeur absolue li ñu jot a defagum ci wàllu yokkute dab na vingt-trois pour cent ci quarante pour cent yi ngeen di laaj wante noonu toog liggéey bu ñu liggéeyee an lu kër gi indi ci résultat ñu bokk ko parce que li war a leer aussi moom mooy liggéeykat yi ay actionnaire lañ ci kër gi mhm. te bi seen au commencé léegi amul benn dividende boo xamante ni liggéeykat yi nee nañ yéen a ko moom mhm. parce que kon gi amul bénéfice mhm. ñun ay actionnaire lañ à hauteur de huit pour cent liggéeykatu seen au bu ñu xoolee ñu nekk ci secteur bi onze pour cent lañ ci am ci wàllu action yi kon koo xamante ni actionnaire nga kenn woowu la ne la kaay sa dividende ngi nii. ñaari at nga ne dañ ma yokkal bu boobaa war nañu xoolaat affaire bi parce que su doon def nañ bénéfice ñun ay actionnaire la ñooy njëkk a laaj ne ana suñu wàll ci bénéfice bi kër gi def waaye ñun defaguñ ko. mais suñ la suñ la déggee ci biir wax mooy yéen bañu leen defal leen augmentation salariale bu ñu soxla. mais da ngeen demander du temps pour permettre entreprise mun a sukkaliku. mën a jógaat mais tey est-ce que du problème mu gestion tey moo nekk biir Sen'Eau. déedéet. xam nga kër gu bees seen Sen'Eau ñaari at la fi defagum. Mhm. 2020 la ñëw. Mhm. ci contrat 15 ans yi mu am. Mhm. booy soog a ñëw da ngay def lu ñuy ay investissement lourd. yu la mën a permettre nga mën ko amortir balaa contrat bi di jeex. kon donc ñaari at ñetti at ba jàpp ñeenti at yi ci jiitu presque mën naa ne doo am bénéfice. parce que ci ay investissement ngay def ngay ngay ngay ngay nekk. investissement yooyu ñuy def. benn rek laa ci mën a joxe firnde muy stock. matériel boo xam ne du ñu bëgg muy am rupture. actuellement demoon nañu ba six milliards. de stock alors que en temps normal. mun nañ bañ a yegg foofu. un milliard quelque sax doon na doy. ci wàllu stock. mais pour parce que dañu xam ne investissement yu lourd la ñuy def. moom moo waral ñuy def loolu yu ci bëri dañ koy jënd yu ci bëree bëri nekk ci di transformer kër gi transformation bi ñuy transformer kër gi moom moo laaj ñu dugal xaalis bu bëree bëree bëri. mais dañ jàpp ne lu ñu dugal actuellement. dootuñu ko defaat presque mën nañu ne fii ba contrat bi di jeex. kon donc du problème gestion. yooyu moom moo ko moom moo ko moom moo ko waral. ndax ñoom si seen i kàddu à chaque fois dañuy euh, laal directrice bi déjà nee nañ euh, CNO dafa nekk ci problème mais moom dafa préférer sax jël avion dem vacances toog toogi Europe noppalu ji. xam booy wax da ngay wax loo xamante ni jàpp nga ne si akulaay taala loolu moo nekk. Mhm. yaakaar naa jamono yi toll ku wax waxu vacances di ko ay mag jëmm ñuy liggéey këram toll fii yaa ngi wax lu la neex. wante. ndax déclaration yi defe naa ne dégg nga démb. liggéeykat yi. Mhm. ci rawatina boo nekkee ci management. Mhm. lu ci ëpp ci li ngay def di tukki di dem di ñëw ci la bokk. Mhm. man dama koy def. yeneen cadre dañ koy def. ñeneen dañ koy def. kon dem ak ñëw mhm. bu kenn jàpp ne day dem def ay caaxaan mhm. jéego bu mu def jàppal ne ci wàllu liggéey bi la koy def mhm. génn bu mu def jàppal ci wàllu liggéey bi la koy def ndaxte bu demul dikkul bu boobaa kër gi nu ñu bëgg mën a méngoo ak jamono mën na am mu sooxe wante wax ay vacance yaakaar naa ne loolu lu ñu war a mën a xoolaat ma yokkuwaat ci rek ne ñaari syndicat yi mu la doon wax. Mhm. bu ñu xoolee bi ñu xaymaa tey jii rek euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo dem gerew ci périmètre bi yëpp. Mhm. vingt 26 pour cent des travailleurs. Mhm. kon bu bu ñuy wax waa o dañuy grève dañu war a préciser ne ñenn ci liggéeykatu Sen'Eau yi ñoom ñooy grève ñun junni ak ñaar téeméer vingt 26 pour cent de deux 1200. ñoom ñooy grève kon donc loolu moom moo tax fii ma ak yéen. amul benn client boo xam ne nii dangaa ñàkk ndox ndax mhm. gerew amul benn client boo xam ne dangaa def réclamation ñu ne dañoo gerew mënuñu ko toppatoo mhm. amul benn fuite boo xam ne dañu ko bàyyi ndox mi di xelleeku ci mbedd mi defaruñ ko mhm. ndax grève amul kenn ku dem ci agence ne damay def abonnement ñu ne demal ba grève bi jeex kon liggéey bi mi ngi dox wante suñu sañoon ñëpp ñëw jàpp ci ndax mbooloo moom mooy doole kon xeebuñu kenn bu dee benn nit képp moom moo dem grève dinañ fexe toog ak moom waxtaan. Mhm. ba mu dellu si waat. Mhm. wante du caagante ne impact bi ñu bëgg muy ñu fexe ba kër gi euh, liggéey bi sooxe loolu moom ñi ngi laal bant. Mhm. di yeggaguñ ci. ñi ngi fexe ndox mi yëgsi ci nit ñi ñi ngi fexe di def ay facture ñi ngi fexe di def lii di réparation de fuite. ñi ngi jël abonnement yi ñi ngi. def maître yi ñu ngi def lépp loo xam ne ci processus liggéey bi ci la ci la bokk. mais ku dem grève tey ngeen bëgg waxtaan ak moom ngir euh, mu ñëwaat liggéey si bu ngeen daggee salaire am mbaa waxtaan dina yomb. dina yomb du yomb mi ngi dépendre ci ku ci nekk fan nga féete ak loo bëgg. Mhm. ndax yoon code du travail moom moo wax ne képp ku liggéeyul bis bi nga liggéeyul. Mhm. ne da ngaa grève ki ngay liggéeyal wala ki lay liggéeyloo am na sañ-sañ ñu bañ la ko fay. Mhm. article L 70. Mhm. moom moo wax lu mel noonu. te balaa ñoo dem grève bind nañu benn note d'information. Mhm. diffusé ko liggéeykat yëpp xam ne bis boo liggéeyul nekk ci grève kenn du la ko fay. kon ponction yooyu ñuy wax amul kenn ku ne bett na ma ci ñu doon grève ku mën a taxaw ne. man xaw ma woon ne bu ma gréwee dañuy dagg sama salaire loolu moom yoon moo ko maye. wante nag mën nañu toogaat waxtaan xool ba xam nan la ñuy doxalee ak ñoom waaye fii ñu wax ak yéen fi ñu teg ci code de travail li mu maye lañ ko teg euh, euh, gis nañ ne aussi euh, ku mel ni gii Marius Sagna le tout nouveau député ñëwoon na jàpp ci combat bi gis nañ aussi doon dénoncer la situation des stagiaires ñu ne seen CNO pratiquement dafay dugal lu toll ak presque quatre cent personnes ñuy stage te soixante mille francs lañ leen di fay. waaw man su ma sañoon ku mel ni Guy Marius Sagna parce que dafay waxte buy wax nit ñi dañ koy déglu. Mm-hmm. bu doon may moom balaa maa wax dinaa jéem a jege direction générale. Mm-hmm. comme ñëw na laaj liggéeykat yi ñu wax ko ñëw na ba ci bunt ba. waroon na ñëw ne dama bëgg a toog ak direction générale ndax dañ ma wax lii ak lii ak lii loolu nañ la demee mm-hmm. wante bu fekkee dafa am benn version ñëw wax ci turu benn version boobu jàpp naa ne ku objectif doo doxale noonu mm-hmm. ku bañ a jeng doo doxale noonu da man damay loué li muy taxaw askan wi mm-hmm. wante mu mën ci boole équilibre mm-hmm. muy gën parce que bu ko équilibré wul lu muy wax day am sobental bu ko nit ñi di sobental ndax benn benn kàddu rekk la am benn nopp rek la la la maye te suñu sañoon mu toog ak ñëpp su bëggee leer lu ko leer ci loolu mu wax mhm. na ñëw fëgg suñu bunt ñu ubbil ko mu toog waxtaan ak ñu mhm. ne nun dañ ma wax lii ak lii nan la demee wante comme moom dafa jël benn kàddu rek mu dem su bëggee lu ko leer mhm. ci loolu na dellu si waxtaan ak ñu mm, ñu toog indil ko ay preuve bu ko neexee ñu indil ko ay stagiaire wala mu def périmètre ñu may ko mu dem fu ko neex laaj stagiaire yi laaj ñi mu bëgg laaj ba xam loolu mu wax ne moom lañ leen di fay ndax noonu la demee waaw am déet. mais comme yow yaa ngi jàkkaarloog askan wi di wax ak ñoom. au delà de posture au delà de posture Guy la bëgg wax foofu mooy. démarche bi au delà de démarche bi tey moom li mu wax maam nañu resté ci feey waaw li ma la bëgg wax mooy. waaw li mu wax wuti na ak li am. Mhm. pour gàttal. Mhm. parce que euh, stage. Mhm. si wàllu liggéey la bokk. man mi bala ma am liggéey dem naa stage. peut-être ñàkkul yow tam. dem nga stage mhm. bi nga doon stage xamoon nga ndax li leen jox tolloo woon na mhm. ak yeneen salarié yi nga fa fekk waaw am déet mhm. seen bu mu ñëwee gis ay stagiaire ñu ci bëri da leen régulariser dafa leen ay CDD CDD yooyu moom lu mu tey ji moom moo tax ñu nekk ñu ci bëri ay CDI parce que ñun bëgguñu jël stagiaire lu ëpp ñaari at te régulariser wuñu ko soit mu am contrat CDD soit mu am CDI ci loolu lañ nekk am nañu nag pépinière pépinière mooy ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg liggéey ci ñun ñu jàngal leen liggéey bi mais mënaguñ leen def stagiaire mënaguñ leen embaucher dañuy dem génn di dox seen soxla wala ñu leen bu ñu leen soxlaa ñu leen ah soxla nañu ci pépinière bi nangam parce que lu ci ëpp bu ñuy recruter dañuy si ne ana pépinière bi ñan ak ñan lañu jàpp ne ci gën a xarañ mm-hmm. ñu wax ñu ñëw ñu xool càmbar bu ko defee ñu mën a seet ba xam mën nañ leen dugal waaw am déet. Mhm. wante pour dellu si waat ci mbirum Guy Marius Sagna su ma sañoon doxalinam mu gën ko équilibré. Mhm. par rapport à li nga xamante ni mhm. def na ko. waxu ma ne noonu lay doxee fu nekk de. wantu en tout cas ci situation Sen'Eau bi. nu mu ci doxalee su ma sañoon mu xoolaat ko. laaj direction générale. donc amul benn moment bu mu jéemee dugg en contact ak direction général woowul kenn jéemul sax laal bunt man mus naa wax ak moom. Mhm. te bi paase ba mu demee Ziguinchor bi amee problème ndox. Mhm. ba mu ñëwee dañ ko ubbi bunt bi. Mhm. wax ko lan moo tax Ziguinchor amoon problème ndox lan moo tax bi yoon ñëwul laaj Ziguinchor amee problème ndox. dem na mais dafa dem directement xam ne fan lañ ko war a jëlee information mu dem direction régionale ñu dalal ko li mu laaj yëpp ñu indi ko ci ay tontu. lan moo tax bi yoon bi mu ñëwee duggul direction général pour laaj. laaj la boo xam ne man dama ko koy yóbbante ba xam te ba tey suñuy bunt ubbeeku na pour moom saa su ko soobee mu ñëw laaj ñu ñu indi ko ay leeral pour que beneen yoon suy àddu ci yu mel nii mu mën ne liggéeykat yi lii lañ ma wax direction générale lii la lii lañ ma wax au delà de coowu travailleur euh, CNO ak euh, direction générale bi euh, askan wi ci boppam askan wi am na localité yoo xamante ne ba tey dafay am problème mu ndox soit euh, ndox mi comme man par exemple bu ma lay expliquer xëy na peut-être zone yi ma gën a maîtriser tey muy euh, zone géejawaay mm-hmm. am na effort bu rëy bu am par rapport ak ni meloon bu njëkk mais euh, la plupart des cas dañu lay signaler que ne ndox mi du yéeg à hauteur wala parfois avant robinet bi di tëj aussi avant muy ñëw da dafa dafay guddi lool. yéeg en hauteur dafa am loo xam ni nii règlement de service moom presque mën naa ne mooy code de l'eau mm-hmm. comme code de la route nu mel ci tali bi dafa am loo xam ne nii moom la santaane mhm. dafa ne dafa am pression dix bar mhm. bu ñu war a mën a indi ba ci conteur ndox mi dix bar presque mooy dix mhm. su weesoo dix comme fii immeuble bi ñu nekk nii tey jii yéen yen a war a def installation ci fii nga nekk nii pour ndox mi mën a yéeg fekk si wante ndox mi dina ñëw ba ci compteur bi ci suuf am pression 10 soo amul surpresseur nag malheureusement soo bëggee am ndox di nga xaar ba guddi waaye mënoo wax ne ndox amul ci immeuble bi loo gën a kawe da nga war a am sa installation installation yi yoo xam ne nii moo lay mën a permettre rawatina surpresseur mën a jiñ ndox mi rawatina tamit nga am réservoir mu mën a téel ndox mi ba saa soo ko soxlaa nga am ko ak pression bi nga bi nga bi nga soxla fii ñuy wax ak yow Mm-hmm. heureusement nga wax ne géejawaay gis nga ne effort am na fa. Mm-hmm. du géejawaay rek. Mm-hmm. fépp ci périmètre. rawatina Dakar. li tax ñu indi Kër Momar Sarr 3. moo nekkoon ñu améliorer de manière très sensible desserte en eau bi te loolu quartier yi ñu may limal du jeex baaram benn loxo. fii may ba ma la laajee nela ban quartier nga lox man aw ndox. di nga xool taxaw tuuti soog ma wax quartier nangam alors ko bu njëkk suñ ne ñàkkum ndox rek nañ dem parcelle nañ dem faja nañ dem euh, bërëb sàngam moo mhm. leen laajee tey dana wax tubaarkàlla alhamdulilah ñooñu boo leen waxee ne ndox ñàkk nañu wax déedéet ñun loolu bokk tuuti suñu mbir mhm. te di nag dafa am loo xam ne nii ay jamono ndox mi pression bi mu daan ñëwee mën na wàññeeku. Mhm. comme fi ñu toll nii dafa nekk jamono tàngoor demande bi dafa bari daf mel ni rek màggal nga soxla autoroute à bi mhm. est-ce que màggal autoroute à péage ni muy mel noonu lay autoroute bi noonu lay mel saa su nekk mhm. déedéet bu dee màggal quasiment mën nga fanaan ci autoroute à bi te doo mhm. dem alors que bu dee beneen jamono da ngay daw lu la neex jamono jii nag mën nañu ko méngale ak autoroute à parce que dafa tàng ñëpp dañ soxla ndox donc nit ñi seen consommation ndox dafa yokk loolu lañ tuddee ci ñun période de pointe pointe boobu mu toll nag mooy tax ñenn ñi seen pression mënu wàññeeku mais ndox mi moom bariwul quartier yi mën a wax ne man mënuma amatuma ndox H24 loolu moom yaakaar naa ne su amee tamit ñi ngi leen di yëglu ne ku toog amoo ndox te nga daan am ndox ci waxtu yi nga daan waral am ndox jàppal ne am na anomalie mën nga woote suñu numéro vert boo wootee suñu numéro vert wala ko képp koo xam ne xam nga ko ci seen woowu mhm. dina ñëw xoolal ba xam lan moo ko waral. xam nga ko la wax ni am na amélioration c'est pour diir ko kooku kon xam na zone yi. Mhm. parce que euh, amoon na ay mbir yu ma ci doon dox ba amoon na ay jamono sax seen eau sans eau laa leen doon tuddee. Mhm. donc cela veut dire que nit ñi dañ daan toog duñu am ndox. xëy na léegi ndox mi mu ngi ñëw mais askan wi actuellement lu ñuy jooy ñu ne ndox mi bu ñu consommé ba weer bi dee bu ñu leen indilee facture dafay seer. facture moom dama bëgg a leeralaat ne diggante client bi ak Sen'Eau daa amul ci dox muy arbitre arbitre boobu moom mooy compteur bi te compteur bi ci kër client bi lay nekk client bi mën na ko contrôler heure bu ko neexee mën nay xool saa su ko neexee ba xam moom ndax li bu ñu relever li ñu ne moom la consommé méngoon na ak li nekk ci compteur am waaw am déet kon compteur boobu mooy arbitre bi index bi ñuy liir ci la releveur bi di sukkandiku pour wax ne ba mu ñëwee fii compteur bi maa ko fekk ci index temps bi mu fi dellu siwaatee maa ko fekk ci index temps bu ma defee différence bi temps de mètre bi la toll loolu lay facturer client bi client bi su ci gisee boppam mu ne xeerul su ci gisul boppam yoon may na ko mu ne antuma ci lii ngeen ma facturer pour ñu xoolal ko mën na ñëw saisir Sen'Eau mhm. ñu ñëw xoolal ko ba xam lan moo xew ci compteur bi mhm. su fekkee ne wóolul compteur bi danaan damay def lu ñuy wax étalonnage mhm. étalonnage nag soo ko déggee moom mooy ñu dem vérifier compteur bi te du Sen'Eau moo koy def waa poids et mesure ministère du commerce ñoom ñooy ñëw ginnaaw boobu o jëlee compteur bi nga xam ne client bi wóolu ko parce que boo wóolul ko li compteur bi rek dem def étalonnage da ngay fay nag seize mille et quelque dañuy dindi compteur boobu indi la compteur bu bees compteur boobu la waa poids et mesure du yóbbu port mhm. banc d'essai bu port banc d'étalonnage bu port mhm. foofu lañ koy éprouver bu ñu ko contrôler ba pare ñaar ñoo mën a ñu ne la compteur bi at mi na ne client bi fayal li nga facturé wala ñu ne compteur bi at miwul daal ne seen o ni nga facturé client bi xoolaat ko xottil sa facture nga delluwaat facturé ko mhm. te bu boobaa gannaaw indil nañ ko facture bu ñu koy indil facture dañuy xool ñetti facture yi mujje yoo xam ne moom nangu na ne moom moo ko consommé bu fay ko ñu defal ko moyenne bi fayee ko ko loolu en attendant ñuy xool compteur bu bees bi ba xam day confirmer facturation bu mujj bi wala da koy infirmer ci booba lañuy sukkandiku wax ne problème am na wala problème amul kon ñun amuñu benn intérêt pour di teg client bi te di ko tey lu mu àttan lu suñu sañoon client bu ñu indil facture da nga am naa lu ma ko fayee nga gaaw dem fay li ngay fay ñu ñu ñëw fayeeku la àdduna bi woy woy ay mbiram dox ñu ko bëgg problème bu ñu ma signalé woon fan yi mooy euh, dafa am ñu bari ñoo xamante ne xëy na dañuy jot facture buñ ko jotee pour ñu fay ko xëy na peut-être dañuy góorgóorlu pour fay bi dafay xaw a jël temps tuuti euh, am na ñoo ñeneen ñoo xamante ne ne dañu ne ñoom dañuy toog duñu gis benn agent bu andi facture seen kër dañuy xëy rek gis ki war a couper ñëw di couper. waaw bu fekkee ne li nga mujj wax nii am na dysfonctionnement la wante dañuy wax tamit ne client bi soo gisul sa facture ci jamono bi nga ko daan amee war nga interpeller seen o nga ne man sama facture ñëwagul ndax jaadu na wala jaaduwul man fi may wax ayu tey jii rek dama bind yeneen kër boo xam ne tam concessionnaire la buy joxe facture ne sama facture dama ko daan jot jotandoo ak facture Sen'Eau mhm. facture o ñëw na wante seen facture ñëwul ndax jaadu na ñu ne ma may ñu gëstu ba xam mhm. fii may ak yee ak yéen maa ngi toog di xaar ba xam dañ may wax ndax problème la wala lu jaadu la mhm. kon ku gisul sa facture ci jamono boo ko war a jote li gën a euh, yomb mooy nga laaj ba xam lu tax facture bi ñëwul te soo laajee dañ la wax lu tax facture bi ñëwul ndax ci ñun la ndax facture bi dafa ñëw ñu jox ko kenn mu jël ko bañ ko wàccee wala léegi parce que ñi dëkk ci immeuble yi. Mhm. li ci ëpp bu ñëwee bu joxee facture yi ki nekk ci suuf mën na am mu yéex leen ko distribuer wala leneen. Mhm. donc yooyu yëpp dañ koy dañ koy dañ koy xool waaye nekkul ni lu ñuy lu ñuy tay la. Mhm. beneen bi moom mooy mbirum facture boo fekkee ne da nga am facture nga gis ne yow. li ñu la indil bëgg ngaa fay waaye mënoo fay. da ngay jokkoo ak fa ngay faye waa Sen'Eau nga ne leen ah man de am naa facture waaye nag jamono moo naqari <laughs> dama bëggoon ndimbal ñu ne la waaw mën nañu defal moratoire moratoire bi ñu ne la léegi wax ñu ci ñaata weer nga mën a fay <laughs> boo ne ci nangam weer nga mën a fay kenn du la coupé <laughs> dinañ la may biir bi nga ñaan weer wu nekk nga dugal weer wu nekk nga dugal ba ba ngay matal sa facture waaye su fekkee da ngaa toog waxoo dara ne man mënumaa fay. mais bu ab bi jotee dañuy couper ko. pour fàttali ne ne am nga facture boo fayul parce que suñ ko doon def secteur bi yaakaar naa ne du demee nii mu demee nii ba coow li di ci bare yokkal maag bañ maa yokkal. Euh, pour dernière euh, laaj bi mooy euh, est-ce que au au sein de Sen'Eau am ngeen effectif bu mat boo xamante ne dinañ yóbbu factures yi ci kër gu ne. xam dañu am li ñuy wax tuddee direction clientèle. <laughs> direction clientèle moom mooy toppatoo yóbbu facture. Mm-hmm. te sax ñun li ñu bëgg moom mooy digitaliser facturation bi. Mm-hmm. am am na kër goo xam ne ci wàllu concession lay yëngu euh, ba ma demee laaj leen dama leen ne dama doon yéex a jot sama facture ñu ne ma jox ñu sa adresse mail. Mm-hmm. facture bi léegi dootuma ko jot de manière physique. sama adresse mail laa koy jot te bu ma toogee app bi bëgg a jot fayuma. dañ may yónnee mail ñu ne dañ lay fàttali ne sa facture fay googu mhm. te li ñu nam tàmbali muy transformation bi dina dem ba sa facture saa su génnee di nga am SMS bu lay xam ne sa facture génn na mhm. nangam la soo demee ba mu bëgg a jege ñu gis ne fayoo dañ la fàttali ne la ba dañ lay fàttali ne facture ba tey fayoo googu mhm. ci loolu lañ jëm te adduna bi fu mu nekk nii dañ nekk ci tànki modernisation modernisation mooy di dématérialiser facture mais nit ñi ils sont toujours en droit laaj. seen facture physique. comme yoo règlement de service moom moo ñu ko laaj dañ koy war di di yóbbu. wante euh, toog di xaar facture ni facture amul jotaguma facture. du ma fay wala du ma yëglu duma def dara boo toogee bu affaire bi app. Euh, bi jàll. ñoom bu ñuy def seen i contrôle ci facture yi fay nañ ko la fayuñu ko. bu ñu gisee ne yow fayloo ah bu boobaa dañuy yebal seen i ndaw ñu ñëw couper ko pour nga mën dem fay. parce que tant que coupé wuñ ko nit ñi duñ fay. Mm-hmm. te bëgguñu yegg ak kenn ci coupé ko. parce que mm-hmm. du ci xol bu neex lañ koy defee. Mm-hmm. déedéet sës moom mooy tax ñuy ñuy def lu mel noonu. kon ñu dalal xelu clients yi rek ne fii ñu jëm ak ñoom dañ dem ba incha allah dootul aajo ñuy xaar facture. même ci paiement électronique yi am na ci plateforme yoo xam ne boo interroger. Euh, parti bu Sen'Eau mhm. dina la wax ndax am nga fi facture wala amuloo fi facture mhm. kon loolu yëpp ay yombal la yoo xamante ni ñi ngi koy def pour que nit ñi bañ a taafante jotuma facture pour bañ fay mhm. donc yooyu yëpp yëpp daal mi ngi mi ngi mi ngi ñu bàyyi leen nga lancer sa message tàggatoo ko si mbokk internet Sénégal yi waaw di wax ne seen o juste avant avant loolu bon benn de juste dernière question mooy euh, dafa am benn remarque aussi bu gaañi def euh, par rapport ak seen Sen'Eau mooy la plupart bu travaux waree am pour ñu yëgle ne ndox mi tey dafay manqué la plupart communiqué bi balaa muy génn day fekk robinet bi tëj ba pare. ah loolu de ma jaaxal ndax ñun règlement de service dafa ñu wax ne. Mhm. su fekkee dafa am lu ñuy wax travaux programmés. Mhm. maanaam ñu ne euh, màggal bi. Mhm. comme xam nañu ne ñu ci bëri ñu dëkk Ndakaaru dañuy dem kon ñiy soxla ndox dina wàññiku bu baax. dina am ay liggéey yu ñuy def ñaari fan gën ngaa néew balaa ñuy def travaux programme yooyu war nañu génn communiqué ci médias yi wax ne am na ay travaux te wàllu ndox mi ni mu doon ñëwee ci robine yi dina am sooxe guñ ci nemmeeku pour que nit ñi mën a fagaru mën a root mën a am ndox mu ñu denc ba ba ñuy liggéey ba pare am na leneen loo xam ne ay paan moo ko indi paan ku wax paan mooy lu la bett lu la bett nag dina la mën ci waxtu yu njëkk yi su paan amee nag nit ñi dañu daje toog xool diagnostiqué paan bi lan la xayma paan bi ci yan ban diir lañ ko mën a réparer xayma it kañ la ñu war a mën a def li ñuy wax remise en service. Mm-hmm. bu boobaa ñu soog a génne communiqué mooy nit ñi ne sama robinet dafa tëj ba pare mm-hmm. ñu soog a génne communiqué loolu su amee jàppal ne paan moo waaye bu fekkee ne paan amul travaux programmés la balaa moo am. 48 heures avant dina ñu yëglu génn communiqué ni ba sàngam nit ñi nañu fagaru wax leen matuwaay yi ñu jël pour xamal leen ne ndox dina ñàkk. Mhm, ñu bàyyi la nga tàggatoo lancé sa message. waaw di gërëm waa waa Sénégal di rafetlu liggéey bi ngeen di def saa su nekk ñu jàpp ne euh, dafay mel ni seetu askan wi. Mhm. moom ngeen bëgg a wuyoo parce que ci soxla askan wi ci ngeen di yëngu su booba ngoon. ci wàllu woowu tam euh, ñu koy rafetlu mm-hmm. parce que yéen bokk ngeen ci ñi jokkale sénégalais yi mm-hmm. jokkale gi mooy lan ngeen gis mbir jàpp ne war na mën a intéresser sénégalais yi askan wi mm-hmm. ngeen ni nanu ci liggéey nañu ci waxtaan boroom xam-xam yi ñëw ci boroom xalaat yi ñëw ci ku ci nekk am ci loo ci wax ñëpp mën a seet nu ñuy def ba ku ci nekk li nga ci bëgg a jàpp nga jàpp ko ci muy li nga jàpp ne moom moo gën wala li nga jàpp ne moom mooy li ci xaw a safaanoo tuuti ci li ñuy wax yëpp waaye ak lu mën a am mooy ne euh, liggéey bi ngeen di def ndax man mën naa ne ba tey ci laa nekk ah, mhm. ndaxte euh, sama métier moom mooy tas xibaar mënuma wax ne tailleur la mhm. Euh, daanaa ko def nii may def nii daanaa ko def ay ay ay ay nit di mhm. interroger ay ay nit mhm. ci ay question yu yu baree bari mhm. kon xam naa njariñ li euh, di leen ñaanal ngeen dem yegg fu ngeen bëgg kër gi yegg euh, boole ci rigueur boole ci professionnalisme parce que mooy ñaar yi nga xam ne moom boo ko laltaayoo boo ko gànnaayoo duy bëri lu lay bett ci liggéey bi ñun bañ daan ci tolloon gënoon a féete ndaw li ñu doon xartoo moo nekkoon bëgguñu génn benn xibaar bu nit di ñëw mën a weddi ku nekk dafa xasoon loolu te ku ci nekk di yëgu ci wàllu tas xibaar war nga saa su nekk ngay wax ne lii may wax nii ndax mën naa ko wax sama wëju ndax mën naa ko wax sama soxna ndax mën naa ko wax ku ma jege su fekkee ne jekk na nga ne mën naa ci dem su fekkee ne jekkul nga ne naa ko xoolaat mhm. loolu yëpp bokk na ci ah, loo xam ne maanaam yóbbante la rek mhm. lu may jàngale mhm. wante comme man ci métier mi mën naa ne ci laa ci laa màggee ci la ma nàmpatale léeg-léeg damay am réflexe boobu kon gën a góorgóorlu ba bu am benn yoon xibaar jib ñu ne fan la jibee ñu wax ko ñu ne ah ñooñu de nàngam man rajo bu ma nekkoon mën naa ko tudd muy Sud FM. Mhm. dam na daan xew ci réew mi mën nga ko dégg ci rajo bu nekk waaye soo bëggee wóorlu leerlu ndax am na am amul da ngaa jàppal Sud FM. Mhm. loolu label la woon bu Sud FM liggéeyoon ci ay jamono. Mhm. bëgg naa tamit ñu mel ni yéen surtout nekk ci site d'information général yi. fexe ba lu am bu nee dara xew na Sénégal ñu ne dugal Sénégal ndax bind na ko wala bind ko. ndax wax na ci wala waxu ci. donc di leen ñaanal ngeen yegg fi ngeen am yéen yegg fa sunu borom taxawu leen jàppale leen bu baax baax. Mm-hmm.